salaamaaleykum mbokku téléspectateur Dakar Net gannaaw bu ma leen nuyoo ma ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey nag ma amoon euh, mbégte ak plaisir ñëw jàkkaarloog yéen ci seen euh, sama micro trottoir sama micro trottoir nag euh, su ngeen ko déggee mooy chaque semaine dañuy jël phénomène bi nga xamante ne ni que moo gën a marqué sénégalais ñu daal di koy génnee dem envers ñoom ñu waxtaanee ko. trouver ci solution soit ñu wax ñu seen xalaat tey nag lu ñu jël mooy divorce ku ne xam na ni divorce tendance la temps yi tendance sax laa ko mën a tuddee parce que bëri na torop torop torop torop torop ba tax na rek dañuy jël suñu micro daal di dem euh, dugg ci dëkk bi ah tàllal micro yi suñu tata yi suñu yaay yi suñu papa yi suñu frère yi suñu sœur yi pourquoi pas parce que xel matul ku ci nekk rek daal ñu indil euh, lu nekk ci euh, xalaatam ay ca ñu dem. grand ci loo nekk. Ah, maa ngi sant bu baax. nuyu naa la. waaye fay naa la bu baax a baax. en fait grand dañoo amoon benn phénomène bi nga xamante ne ni moo lëmbee Sénégal mooy que divorce yow nan nga gisee divorce bu bëri bi Sénégal temps yi bon merci ah mais pour man nag moom divorce yu bëri li ko waral mooy lépp loo gis dafa am base divorce yu li ko waral pour man lépp ci éducation de base la parce que bu njëkk ba dañu doon gis ne jigéen ñi dañ leen doon yar rek tel sorte ko def ci ñoom ay valeurs yoo xam ne ba ba nga xam ne tey ñoom bés bu ñu màggee bu ñu leen jox seen borom kër dañ naan leen carrément bu fi mës a ñëwaat tamit ne seen borom kër kii ay yaxam lañ la laaj boo defee xale bu jigéen bi ci yar bi nga xam ne moom lañ defoon ci moom ak éducation bi moom lépp la li nga xam ne moom la ko parent bi sant lay def à la lettre mais léegi nag valeur yooyu lañ dem ba nga xam ne moom la xale jigéen yëpp perte léegi gis nga xale jigéen ku si nekk day sol lu ko neex ñii sol ñii sol ay sol lu bon romb seen parents seen parents duñu wax dara boo waxee ñu ne lan ñu ne la du jikko ji jamono ji la loolu tey tey bu ñu demee ba nga xam ne lépp base bi yàqu na mooy waral tey li nga xam ne euh, phénomène bi nga wax mooy phénomène divorce yu bëri ndax léegi gone yu bëri respecté tuñ ci euh, seen jëkkër yi ñoom dañuy xool ci tubaab bi yow tey nga ne sa borom kër la bu borom kër bu ne benn nga ne ko fukk bu leen a defal lii nga ne ko defuma xam nga kon kooku boobaa yéen ñaar du seen def du mën a yàgg ndax pour seen def mën a yàgg il faut tamit yéen ñaar kenn kenn kenn di bàyyi lii te nit ki jigéen boo bàyyee sa ndey ak sa baay dem fekk ju góor li la war leen la mooy respect bi nga xam ne moom nga joxoon sa ndey jox ko sa baay nga jox sa borom kër ba jox ko lu ko raw ndax loolu la loolu lañ suñu jàngal te loolu loolu nga xam ne moom la ñu suñu école yi jàngal daal. waaw dëgg la sa wax rafet léegi dañu lay laaj rek dernière question tey jii ah, boo doon conseil jigéen ñi ngay gën a gën a conseil wala njóor ñi wala ñoom ñaari yëpp a yemandoo. non man nag vraiment bu ma doon conseil xam naa ne am na ñoom dañ ne dama formé man jigéen ñi laay gën a conseil dama leen di jox ay conseil lu tax waaw li tax tey dañoo gis ne tey da nga koy ci vie bi ñu nekk ne wala ci classe ak lépp fépp foo mënti dem da ngay gis boo duggee benn classe jigéen ñi ñoo fay nekk 60 góor ñi nekk fa 40 fépp foo dem da gis ne jigéen ñi tey jii nii man jàpp naa li nga xam ne li li gaay naan luy métti ci ñi la parce que ku góor ki moom bu ko neexee moom mun na am ba ñeent yow tey bu nekk ku jigéen daf la takk nga nekk di am yenn yenn jikko yi mun na xooli sa morom mais par rapport ak yow nga am ku jigéen ko bu ñu lay wàññil ay jëkkër yow boobaa loolu dalay wàccee loolu da ngay perte daf valeur tax ñi nga xam ne euh, yenn nit ñi mën nañ la dëkkal foo dëkkul te boobaa daal loolu du woy bu rafet pour jigéen daal. voilà du woy bu rafet pour jigéen donc ñoo ngi lay remercier bu baax. waaw euh, merci man tamit maa ngi leen remercier bu baax vraiment xam nga nii la quoi Sénégal moom nii la parce que réew mi suñu réew la il faut que ñu koy pencoo il faut que ñu koy waxtaanee daal merci. merci beaucoup grand ok ba tax na rek voilà Cheikh ñu dem. pare guñu yaakaar naa ne dina gën a neex. voilà euh, maa ngi nii toog ak ñaari grand yu ñaawul. ci ñan ci kan njëkkee ci yéen ñaar. Seydina Ali. <laughs> bàyyi ba njëkkee ci yow nuyu naa la. maa ngi lay fay. voilà grand euh, may laaj rek euh, divorce bu bëri bi nan nga koy gisee. divorce bi ah sama xam-xam du ci bari lool nag parce que nag man dama yor sama jeeg boo xamante ne ñaanuma yàlla divorce ak moom te nag xam nga sëy moom munta ñàkk ay jafe-jafe amul sëy boo sëy boo gis day am ay jafe-jafe mais àdduna lépp entente rek. xam nga lépp dafa bokk ci tàmbali bi la gis nga nit yow miy góor del waxtaan ak sa jabar bu ko nëbb mais nëbbante bu amee rek maanaam li leen di tàqale day yomb daal bon selon man loolu laa gis quoi. parce que yow na nëbbel bi nga nga gis. nëbb rek waaw. Euh, ma ñëw si beneen euh, sama beneen tonton bi alors euh, yow noo gisee divorce yu bëri yi. waaw divorce bi de moom instant yi bëri na moom quoi li gars yi wax quoi phénomène la ko phénomène la xaw ma virus la daal. Hmm, bëri na lool. mais li damay dëgg li Aline wax rek parfois ñàkk communication moo def loolu quoi ñàkk communication comme que jabar nawle la quoi da nga ko danga war a nekk ak moom di waxtaan ak moom biir ak biti di ko xamal lu bëri moom aussi mu lay xamal lu bëri quoi parce que wartu am frontière daal diggante jabar ak jëkkër quoi parce que dafa xaw a nekk loo ne dara wala du fa amul dara lu xaj bi daal. moo daal dafa am benn entente bu jege lool ba déggoo am daal bu déggoo amee daal def naa daal jàmm dem quoi. yéen daal déggoo bi rek ngeen gis. waaw déggoo bi laa gis xam nga jigéen moom boo ko yilifee fi nga bëgg mu yem rek la yem quoi te def naa boo na ko yemal fii yaay xaritam yaay léppam doom ay xarit ñuy yàq xel mi wala ñeneen après bu toogee yaag moom rek am jàmm ngeen am après la vie voilà euh, la vie continue ba tax na rek euh, dañuy woyal waxtaan bi ñu daal di demaat rek xoolaat keneen ku ñuy taale suñu micro ay ca ñu gannaaw bu ma la nuyoo ba pare euh, dama lay laaj rek papa lu waral divorce yu bari yi. Ah, laaj naa la ko mbir mi ñëpp la jaaxal divorce yi moom ñàkk gëm yàlla la ñàkk daylu bon loolu la yu mel noonu la daal jamono bi fu mu nekk nii Dakar moom dafa xaw a dafa bëri yooyu daal phénomène boobu dafa xew dafa xew waaye yàlla nañ ci yàlla musal daal. léegi euh, papa dama doon laaj rek divorce bi euh, ci jigéen ñi lay faqee ko ci góor ñi. côté jigéen côté góor ñëpp euh, ñi jalousie bu ëpp la ñenn ñi bon mooy loolu quoi donc côté boobu daal dama ci xaw mànd parce que <laughs> cas yi bëri nañu trop cas yi bëri nañu trop waaye. voilà cas yi bëri nañ trop ba tax na rek tonton ñu lay laaj ban solution nga mën a joxe. waaw solution bi ci yàlla dellu ci yàlla rek. solution bi ma am man sama bopp mooy dellu ci yàlla bon suñu maam ñi dañ daan sëy euh, nekk ci kër ba ñetti soxna dañ fay nekk te divorce mosul am mais léegi yooyu dafa bëri boo takkee euh, ñaareel tu vois gis naa cas yu bëri yu mel noonu bon donc xale yi nañu muñ euh, wàññi seen i bëgg-bëgg aussi waaw waaw bëgg-bëgg yi bëri na euh, nañu deylu quoi waaw waaw waaw góor ñi tamit nañu jàppalante quoi ku nekk la war côté côté bu ne góor ak jigéen ñun ñëpp war a farlu dellu ci yàlla quoi voilà c'est ça quoi te xam ne bon <laughs> divorce baaxul daal dafay wàññi lu bëree bëri bëri bëri bëri c'est ça. yaa ngi si jàmm maa sant kay. alors euh, dañu bëggoon a xam rek soxna ci lu war a divorce bu bëri bi. ah divorce bu bëri xale góor dañoo sikk ñooy tënk xale jigéen. xale jigéen yit ñoom it kenn rawu leen kenn damuñu des léegi mënatuñu nekk def ménage normal déedéet am xale jigéen yoo xam seen xaalis lañ jiital mooy loolu xale góor yoo xam seen ñëw téye jigéen dañuy maltraité jigéen ñi mooy loolu. viol bi bëri na ray bi bari na léegi xale bu góor boo wax sax mën na la mbaj doo la mbaj nii te du si di dara. loolu mbaa kon looloo tax divorce bi bëri. waaw looloo tax xam nga xale jigéen dañuy xeex. tàng beeg yooyu. ay bañkat laaj duñ nangu kenn duñu kii. voilà euh, loolu tamit dëgg la léegi dama lay laaj rek tey jii lan moo euh, lan mooy lan lañu war a def ba ñu euh, saafara loolu noonu mu génn. delluwaat ca maam ya rek na maam ya doon sëyee ñu delluwaat ci noonu laa moom xam naa kon kii dinañ boobaa bu ñu delloo ci maam yi ni doon sëyee. te jëkkër bu baax xam naa loolu moom dina wàññeeku bu baax baax. yaakaar ni jigéen ñi tamit ñoo bañ a sëy. ah bëgg nañ sëy dañoo gisul bëgg nañ sëy moom waaye dañoo gisul. yaay ñu ngi lay laaj rekk a lan moo waral divorce yu bari yi. ah ah xale jigéen yi moom fi mu nekk nii nenne sëyeetuñu de ni ñuy yaay daa sëyee ah ni ñuy maam daa sëyee ñoom dafa tuñu ka nag de fa dëgg yàlla moom ndax ñun dañ daa sëy ba de lii na sëy ba dee. noonu moom lan daa def moom fa dëgg yàlla moom incha allah macha allah. waaw léegi yaay euh, lan nga xalaat ni moo tax xale jigéen ñi sëyatuñu. léegi sëyatuñu léegi li li ma si xalaat ndax ñoom ña ne dañuy defar euh, contrat contrat bi bu xësee ñaari weer ñetti weer bu matee bu ñu gisee loo xamee ne baax na ne boo ñu gisee loo xamee ne normalul ñu daal di see génne. waaw léegi euh, lan la ñu war a def pour saafara loolu yaay booy. li ñu ko war a def ñoom xale jigéen ñi. man sama doom laay géetal dañuy war a xool suñu yaay suñu yaay moom dañuy sëy ba dee waaw yaay yi moom dañuy sëy ba dee moom sëy rek la xam moom sëy moom la xam macha allah. waaw kay dégg ngeen suñu maman boobu lu mu wax léegi ñu ngi ñay jaajëfal bu baax a baax ma ma waaw maa ngi lay jëfal yoo tamit yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla taxawu si kàntangam si barkeem su dérégee sëñ Babacar Si voilà mbokki téléspectateurs yi lii lañ leen indi woon yaakaar naa ni gis ngeen ci seen bopp bu baax a baax man de gis naa ci seen boo sama bopp bu baax a baax ndax partage am naa ku ci nekk wax nga sa xalaat donc je vous donne rendez-vous semaine prochaine incha allah beneen phénomène bu ko defee ñu waxtaan ci d'ici là portez-vous bien au revoir.